mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay su guddee fooy fanaan mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay su guddee fooy fanaan na ko yow diggante bi ëpp na trois mois te règlement may nañu ñu ñu ñu ñu ñu wiitu beneen combat booba sax dama ko doon réeja lu mais xale bi dafa xaw a ñor tuuti mayun moom leer na ko ne d'ici trois mois yi te ñun war nañoo régulariser avant trois mois yi te d'ici trois mois engagement am la ñu ne moom ndeke yoxosu na am ménager bu jël lissance wul yi jox ko ko loolu sax erreur attaque na naa ménager bi ko jox ndax jaaduwul nga jël sama licence dem di ko joxi promoteur ngir huit lu ko neex loolu affaire fumisterie yi la loolu rafetul du ma tudd turam ndax sutura mais wax naa ko ne li def jaaduwul fa laay yem mais jam dugg si na léegi léegi imagineel jam téye jamaïcain ndax fi ba ñëwee CNG na ma jam rek moo ko mën a bàyyi ginnaaw ba euh, datam dem na la 14 août waa léegi su bàyyi wuli bëre le 15 mai bii fii ba août mën na ko bëre laat loolu moo gën a rafet nga naan damay xeex xeex bi amul njariñ. est-ce que yéen waxtaan ngeen nañ mu ñuy dëngee dafa yorug caay-caay bu ko xool ci tuutaayam bi dafa yorug caay-caay da nga mi nga romb léegi di ma tooñ. mais moom mu libéré na ko bëre jël soo libéré ut laay bëree nga bëreel ma moo gën nga téye ko du bëre te amul do benn avantage ndax doo ko utiliser bëreeloo goo ko ndax yaa ngi xaar guérison kële te même boo amee guérison moom du tête d'affiche du woon grand combat dafa duggoon ci biir combat yaa ngi xaar góor a soog am am am am guérison nga jël dat dugal ko ci pour affaire gentleman Fallou Ndiaye def na ko fi ne wuli demal nga bëri ji te joxoon na ko avance soo paree nga bëreel ma wuli sax def na ko mais bii xaw ma lu mu ci laxas nag mais su ma soñee daal mu bàyyi wuli bëri la 15 mai su paree août bu amee date bu góor a soog andee guérison mu dugal ko ci mu bëreel ko la vie continue loolu moo gën a rafet waaw. non 13 mois yi munuñ munuñ ci dara réglement moo dal suñu kaw. ba da ko gëstu ba xam ko dama ko doon xeexaan sax di ko yuuxu pour mu bàyyi mais dafa xaw a sob lijjanti na ba ba xam loolu waaw. amoon mbégte contentement pour yéen ñu doon suivre sur Kewel Info Père Max ndeysaan mu nekk koo xam te dafa dafa xat nag waaye man moom daa mënul ci man dara ndeysaan yow dara may jàmm téeméeri rendez-vous jox naa la ko faussé la waaye booy daw do mais ci xam-xam la bokk ginnaaw ba yaa soxla yaa soxla euh, li nga soxla information ak loo mënti na la jaral lu ne yow ndax yaa soxla bu ci mer bul def dara fexeel ba jël rek xam nga lii ma jël tey mënatuma ci dara waaw mais loolu dama ci dama am na léeg-léeg nit dékk ma micro du ma nangoo wax nga mer ma xam ne amuñu xam-xam parce que buñ ne la di la jiñ connaisseur da ngay tiit ndax erreur mën na la dab mais ñoom dañuy defe ne da ngay man luy tiitaru dañoo waay ñoo faal yooyu ñun dépassé nañ foofu sax mais léeg-léeg nga gàntal micro c'est juste di daw wax ji xam nga bu ne la yow lu ñëpp bokk te làmb yëfi ñëpp la booy juum di wax erreur doo ko sax tey ngir moytu yu mel noonu rek moo war a léegi di dëkk nga ne may ma mais du du pour bañ a wax dañu la dañ lay bëgg a jiñ yëf yi ñëpp làmb yëf yi ñëpp la buñ ne la làmbaloog dañ lay nax rek làmb yëf yi ñëpp la jigéen yi sax booy xeex ak ñoom wala sa jabar boo koy dóor jëlal say matukaay koo ci songo erreur mën a laa daan waaw mën a laa lonk caxabal jigéen ñi loolee la ñuy def maanaam làmb yëf yi suñu yëf la. kontaan naa ci yow bu baax a baax kon ni ma koy waxee rek di la ñaanal yàlla gudd fan ak wér ah. yàlla aar la sàmm la bàyyi suñu kanam ndax yow moom yow suma sama papa nga suma xarit nga franchement même bu dul sax micro bi dañuy mbala kaf ma sonal la lool ba àdduna ñëpp ñëpp di ko wax bañ ko wax su may reporté sax dañ naan ma père. <laughs> ah non dag may wër ci stade bi muy ne ma père reporté la may leen non damaa seetaan si wax daa métti mais dag may ne sama dangay ne nga ne bi loo ci <laughs> mënuma ci dara mi ngi nit nit dama ko doon xeexaan waaye daa yeewu moom at mi mu judd sax doof juddu wu ci. Ah, at mooy jo jooy kay kay jaw jaw wuyu père. bàyyi bàyyi bàyyi wulli waay bàyyi wulli. déet du xew man wulli teew bàyyi wulli. wulli teew ma ko bu koy bàyyi. waxtaan nañ ci. waaw doo léegi damay baamtuwaat li ñu wax léegi dama ne. waaw yow bu la neexee du bëre. waaw waaye bu la neexee du bëre. waaw loolu mooy yaa ko du loolu laax léegi. nee naa sax yuuxu naa ko naan ko cinq mois waaye xale bi daa yeewu daa gëstu ba leer na ko ne ne trois mois yi ci loxoom la ñu ne ba moo tax ba ma duggee njàmme ne ma max coow li bëri na mais jam rek moo ci man dara ma ne gars yi pour ñu bañ a perdre du temps nañu régulariser après ma dem topp ko naa ko dabu ji du ma nangul fi mu ne yor nag caay-caay mais moo ne ci dëkk xam nga dëgg bu la dabee da koy nangu mais xam nga lii feet la même moo doon nañu laaj numéro jamaïcain mais dama ko doon mere ci moo gën ñaan ko mu may ko ñu ni ñaan ko mu bañ waaw mais ñoom ñu ngi doon laaj numéro parce que lii feet la recette ba sociale lay def mais moom moo ne ci dëgg su ko neexee du bëree mais mu libéré ko du ko wàññi dara uli frère am la ba pare moom moo ne ci dëgg parce que waaw waaw mu bëre moom moo ne ci dëgg. waaw non ya non su ma demee ba la ñaan. parce que yaa ne ci dëgg yoo xam ne si ay ñaan ndax da xaw a réew non moom sama eh, kii mi ngi kaañoo de. mi ngi kaañoo kaañoo ñu kaañu ko moom sama père la. yàgg naa ko may te ñaanu ma. waaye lii dafa am loo xam ne maa ko moom am na ci loo xam ne moomu ko. du man kese wuli dafa amoon adversaire bu mu waroon a bëreeg. même man su ma mayee tamit adversaire bi dafa am staff am ay mbokk. adversaire te non non nag may déglu rek. père xam nga ba ñu wërwërloo ci. wërwërloo amu ci xam nga ba ñu wërwërloo. xam nga ba ñu wërwërloo waaw non bàyyi ma wax ba pare. barke alxuraan karim bu la neexee ñu bëri. waaw coow di ci am loolu loolu dara ci yow léegi problème mooy. waaw dalay neex rek nga bàyyi. waaw léegi neexu la nga téye bul tudd adversaire loolu xeetu bañ la. loolu dama lay wax dama lay wax kay lu ah. naa pour wulli bëri par exemple. waaw adversaire bi ne ma su wulli daane. su wulli adversaire du waxul loolu may ma non yow père kat yaa ngi bi ne ma wulli su bëree du ma ko du ma ma ko xaar damay dem bëree jëg keneen. mënu koo bañ a xaar xamal tax xamal tax. yaa ngi kale la 14 août. balaa boobaa 3 mois day romb yow ma la doon xeexaanee nga xam ne trois mois yi ma bëgg a régulariser soo newul na bëre du bëre kon adversaire bi amatu ci droit amul adversaire leen rek la man su ma su bañee bëre bañ a indi guérison fii ak indiwul guérison moom mën na laa bañ a bëreel. léegi nag foofu la koy teg. ne non du teg kon bu dul kon bëggul bëre. parce que même suul yi bëre waatul te bëggul bëre du indi guérison. waaw léegi ma ñëwaat ci benn point boo xam ne point bu leer la xam nga làmb la. lu ne mën naa am bu léegi Lirou Diane maa leen tëggoon Gambie bi ngeen ko fàtte. non loolu wax na dafa am may leeral. nee naa ko. wulli ba mu demee ba Lirou Diane demee sa gannaaw saako ya lu fa xew bu ko defee fii duñ ko fa aj six mois wala un an man ma def nan. non loolu ak yooyu yëpp déet non non non non père non non non père père ay ceinture di mooy dafa am looy sóor. non non non man dam règlement rek laay wax de. léegi man man nañu waxtaan man pare naa. léegi léegi yow ma léegi xoola xoola xoola xoola may ma tudd pour ñu bañ a détaillé dama la posé benn na ko téye na ko téye na ko téye yi muy dudd yëpp ay détail la su bëggee mu am moo am damay bañ mu dugg ci yooyu détail di jéem a ñu muy convaincre parce que problème bi mooy ñi ci galaa bi waaw ñëpp bëri nañ combat bëriwaat. waaw man bañu ma loolu du problème. contest yi bokkul man xam naa ne wulli ak Lirou Diane dafa am système bu ñuy bëree te yow yow yow mi yor wulli xam nga ne wulli heure bu toppee mbër heure bu bëree combat mën na cee def loo xam ne mën nañ ko ci at un an lan combat mag Adama Diouf fii nii mënuñ ko ñëwoon ci at bu jotoon Adama Diouf nu mu koy def wulli day day ba ci gannaaw saa koy arbitre arrêté mu bañ ne du arrêté xoola ma ñoo doon ñaan mayewul ñoo doon ñaan mayewul bi continue nañ teg ay conditions yu leer ak lu mën a xew même bu defoon dara ñu ko aj daf may bëreel man xam naa li may wax man xam naa li may wax de. non dama ne non déggoo li xoola loolu du am. déet yow nekkoo ci biir géew bi non may ma tuuti waxuma nekk ci géew bi xoola. léegi xoola kontaan naa ci yow. li ci des di waxtaanu micro yow yaa ngi ñu jéem a utiliser dama ko nangu fii duñ sa morom. mbër gàlle yaay mbër gàlle